fa di nuyu képp koo xam ne sama fans nga foo mën a nekk Sénégal maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay ñu nekk Sénégal ak ñu nekk ci diaspora bi yëpp di nuyu sama dëkk muy sama cosaan muy waa sàmbe maa ngi nuyu tudd Sambé bi yëpp di leen jox seen cër ak seen wàccuwaay di nuyu waa kër maam Cheikh na Cheikh Sadou Abi ngi nuyu waa kër maam Cheikh Sadou Abi man foofu laa bokk di nuyu waa kër Cheikh na wul du maam yëpp. di nuyu sama waa kër maam Cheikh Ibrahima Douma Seck di nuyu sama mbokk géwél yëpp di leen jox seen cër ak seen wàccuwaay di nuyu adversaire bi mooy bëri di ko jox cëram ak wàccuwaayam di wax ni rek espoir dafa rafet ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay lépp dafa war a rafet Guédiawaye ak Pikine sore wuñu waaw yéen supporters yi ci kaw dangeen ngeen a war a rafetal def jàmm kaf fu warul sedd dellu ma ñëw tàccu leen loolu waaye tàccu leen loolu. déglu ma ñëw déglu ma ñëw déglu ma ñëw. tubarkalla fu warul sedd fu war a tàng jër fu war a saf saaf mooy maag waa ji ñaanu ma ko dara te bu ma may dara mais yéen bëgg naa ngeen ne ci jàmm ngeen kaf ngeen foo ngeen ree incha allah. Balla Gaye Boy Niang 2 na ñaanu la dara bu ko may dara loo koy tontu. waaw balaa ma loolu maa ngi nuyu waa CNG di nuyu Bira dëgg yàlla échange bi rafet na parce que gis nañu liggéey bu baax bu rafet bu ñuy def. comme maa ngi leen nuyu baax a baax waaw làmb moom comme signature la nekk euh, man xaw ma sax maye bay ñaan duma ñaan duma maye li ma moom laay jël rek point ñaanoo maye wala li nga moom ngay jël Balla lan moo tax nga jël booy ñaan làmb rek làmb moo leen boole làmb moo tax ma jël ko mais ci naka la leen boole làmb dama bëgg nga décortiquer ma. non amul ma lay décortiquer làmb rek moo ñu boole. ci la doo ko décortiquer. non non làmb rek moo ñu boole da ngay xaar ba bis ba. làmb rek Boy Niang Saala. non dama bëgg a relance question Boy Niang. Boy Niang waaw. dafa am stratégie bu doy waar bu mu def. dafa nekk ci làmb di bëree di bëree di bëree di bëree bu mu yàgg. mu jël bëtam bi teg ko ci Balla Gaye 2. sonal Balla Gaye trop. fu Balla Gaye génn mu ne ko kaay ma ma bëri yow. fu Balla Gaye génn mu ne ko kaay ba bëri yow Balla ne ko du maag yow sama rak Sa Thiès demal ci moom boo pare nga dikkaat booy Niang daal di jël Sa Thiès ñenn ñi sax dañ ne ñenn ñi sax dañ ne booy Niang mosul soxla Balla Gaye mais Sa Thiès la soxla woon mais dafa largué woon mu jël Sa Thiès dugg fa for doom nga duggaat lu tax nga duggaat loolu tontu bi dafa dafa neex ba pare question bi dafa neex question bi nga posé question bu neex la xam nga géejawaay dama fa dugg def aliment de démarrage xam nga aliment de démarrage. mooy. mooy boo jëndee poussin bu ndaw aliment de démarrage bi nga ñu ko jox loolu laa def géejawaay def aliment de démarrage daan fa ay mbiis ay école ñëw ci aliment de croissant bi mooy ki nga tudd noonu muy gaan bee toog ak guy geeg ñeneen ñeneen. mais yàlla dafa def ni moom mii mooy sama aliment de finition mm. te mënu ci dara incha allahu rabi bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko bu xeexee nga duma ko bu bëree ma daan ko incha allahu rabi Balla Gaye yàgg ngaa dégg kàddu googu ci mbër Boy Niang mën nañu yaay magam yaa ko jiitu ci làmb mais question bi Cheikh Sarr posé ko dafa am solo dafa dugg géejawaay daan fa ay mbër mais mu leen daan bëtam yëpp ci yow la ko teg mu topp la di la dëkk di la dëkk nga ne ko jëlee sama rakk mu jël sa rakk daan ko moo tax sax man lan mooy leen boole mais question bi question la boo xam dafay ñëwaat Balla Gaye 2 Boy Niang kàddu yi mu wax nee na bëtam yëpp ci yow la ko tegoon te daan na rek moo nekk ci moom nee na doo bëre doo xeex doo dóor mooy bëre mooy neexal li fa neex li fa moo koy def. waaw mais yow xam nga buñ doon nettali palmarès fii la fanaan li ma def Pikine bëri na. fàtte naa yàgg na li def pikin bëri na fàtte naa ko yàgg na lam moo ñu boole dina xam ne lam moo ñu boole amul problème laa ilaha illallah laa ilaha illallah ah. alaaji sala damay ñëw ci Boy Niang Boy Niang laaju askan wi question askan wi laa indi gay gars yi ma ñëw ma ñëw gars yi ma ñëw ma ñëw s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît jërëjëf Boy askan wi may ñëw dañ ma ko yóbbante dañu ma Boy Niang da nga bëree say moroom bëree nga sax ak ñoo am ne ñoo la mag mais bi ñu gisee nga dugg ci ñaari luur da am problème bi nga duggee ci Tapha Tine da nga am problème bi nga duggee ci Lac 2 da nga am problème te Balla Gaye de ci luur yi la bokk ndax jàngat boobu yaa ngi ko koy def yaa ngi koy def ci sa biir xam nga lan mooy sportif de haut xam nga mooy lan mooy boo defee échéance nga échec ci nga jàng ji tiré ci ay leçons moom bu ma ñëwee maa moom ba abi soufflé dina xam ne man yi ma passé tiré naa ay leçons incha allahu rabi. Balla Gaye 2 combat bu mu daan dem daraan maye heure Boy Niang 2 ñaata minute nga koy may wala ñaata seconde non mooy xale moom mooy may minute Cheikh Sarr Cheikh Sarr eh. waa Boy Niang insha allahu rabbi kii ma may temps man maa koy may temps mais may temps yaa koy may temps ñaata temps ngay may Balla Gaye une minute laa koy may une minute bu ñëwul fu mu nekk ma fekk ko fa maa ko wax insha allah Sénégal El Hadj Malick Thiandoum. non. El Hadj dégg nga dégg ñaari mbër yi leen waxante. non man damaa waaru. ayca. li ma waar mooy. Boy Niang mii dafa sóobu ci mbojum Balla Gaye lool. li ma waar mooy. Boy Niang mii dafa ñeme Balla Gaye lool. la Balla Gaye daan wax moom la ñëw wax ko ni ko une minute laa la may Balla yaa daan maye minute. booy ñaa ni la boo bëree ma daal la boo xeexee ma duma la lu la mbër mus tey nga ñëw ni tekk tekkaaral mel ni mburu mu ñu gaj fal bala lan la lu xew dara xewul jàmm rek làmb la rek non man li ma gis li ma jàngate lii du làmb mbapat la pour quoi mu nekk mbapat parce que mbapat la rek da nga ki ngay bëreel wala lan non je le respecte beaucoup duma xeeb doomu aadama wax man sa adversaire mbapat bu arbitre ne pour kurpañ yi daal nga di mbapat la. moom man tam mbapat laa ko jàppee vraiment. lu tax nga jàppee ko mbapat. non garaawul. <laughs> ñaa. Lamine Lamine sa dafa mel ni dafa lay minimiser lu xew Babacar. moom bu may minimiser. ah. per sala. waaw déglu ma ñëw. jëwal. moom bu may bu fekkee daf may minimiser. xam naa kon dafa waxtaanu waxtaanu bind rek ak rakam jee toog. waxtaanoon waxtaanu bind rek ak rakam bee toog. kon du ma minimiser parce que foofu laa jaaroon ak rakam mais incha allah moom. Uh-huh. le premier janvier dina xam ne am na adversaire. premier janvier une minute. incha allah moom laa ko may. mais mais Malick dañoo am suñu déglu ma ñëw déglu ma ñëw damaa dégg sama papa wax. sama papa dafa génn wax ne moom incha cinq minutes boo ñaar daan ko ma dégg moom interview mu wax ci loolu ne papa mu wax cinq minutes kon maa ngi koy xaar. may wax ni sama papa dafa xër rek waaye li mu la may sax daa bari cinq minutes daa bari man boo ñaa maa la wax yow Balla Gaye ba bi suflee foo nekk ma fekk la fa insha allahu rabbi boo bëree dama lay daan maa la dàq bëre dama lay laal dama ne lay laal dama lay laal ça suffit déedéet bu leen laalante mais Balla dama koy duma dama koy daan jërëjëf maa ko bu doole fuuf Balla xalaat dañ léegi ba koog wax ji mu demee ni Malick Balla signature musoo mel nii Malick waaw comme léegi Balla tontuwuma tontuwu la tontuwu Cheikh Sarr nañ ko bàyyi ak Lamine ak Babacar ah xëy na dinañ ko wax loo euh, Fadam 2 ndax ne leen wuyu mu naan ñoom ñaar déggoo nañ maa ngi nuyu ñëpp question bi ma am na pour booy ñaala ñaari question dama koo fekk buntu këram di ko jël mu ne ma seetaan naa sa interview yu bari ngay jële ay mbër moo ngi ñëw de pourtant booy da ngay wax ci kaw nag ma ni ah. question bi pour booy ñaare ñaari question dama ko fekk buntu këram mu ne ma seetaan naa sa interview yu bari mbër boo jëli mu ne la Balla Gaye 2 mooy suñu idole moo ñu dàq bëre te sama buntu kër bii doo ko fi déggee te bis bu ma jàkkaarloo ak moom dinañ am xale bu saf sap loolu dama bëgg nag devant tout le monde tey nga waxaat ko ci kanamu Balla Gaye numéro 2. mais loolu moo am loolu moo am man nawu ma ko ci bëre baarawu ma ko ci bëre parce que daa xumaa bëre daa maa xeex. Mm-hmm. ñi ma xam. waaw topp ma juddulu ma bu ma bat ba léegi. waaw waa Pikine xam na ni kii daa xumaa bëre daa xumaa xeex lu leen laa lay wax. te bu ja te bu ñamee ñam xale bu saf sap. loolu waxatuñ ko moom loolu loolu du wax jëf la. beneen question bi dañ da koy may mu jàpp ba doyal ngemb. xam nga Balla Gaye ñëpp dañ ne bu jàppee lamb ji bu jàppee ci ngem lamb ji jeex Boy Niang nee na da koy may mu jàpp ba doyal ndax da koy confirmer waat fii waaw loolu mooy mbër boo xam ne dafa limité mbër boo xam ne bu jàpp du bëre man damay bëree loxo damay bëree tànk dama ne mbër boo xamante ni bu limité mooy mbër boo xam ne boo jàpp doo bëre man may bëree loxo may bëree tànk te moom dina xam loolu jàpp nag fu bëggee comme sag sag lamb bu bëree Gris Bordeaux ba pare dama ne sag lamb bu bëree Gris Bordeaux ba pare da koy kaas naan ngeem bu ngeem baaxul am bu fu ma jàpp ma ne ko man booy ñaar naa ngeem ngeem boo xam ne foo yóotu jàpp naa ko wax waaw mbokk yi téléspectateurs yi ñu ngi nuyu ñëpp rek di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu Père Gaston ak waa Gaston production yëpp Balla Balla maanaam làmb yaakaar naa ne ki ngay bëreel seetlu bi ñëpp def mooy depuis lors danga mel ni xawma lan la quoi da koy minimise wala danga koy wan ne ko da nga ko dàq bëre wala lan la ba tax nangu sori ci ay affaire am wala daa am looy crainte ci moom te moom dégg nga léegi li mu wax moom na na pare na pour bàyyi la nga jàpp ngembam parce que yow boo jàppul ngemb doo bëre mënoo bëre sans loxo sans ngemba booy ñaa mii nga jàkkaarlool nga gis ko tey lan moo tax nga tekkaaral ci ay mbiram lan la loolu laa lay njëkk a laaj quoi. waa jàmm ak salaam rek jàmm ak salaam Balla jàmm ak moom la ñuy wax mais dama gisoon waa dama gisoon dama gisoon sa combat sa say làmb maanaam say signature contrat la fois passée ak Gris Bordeaux kere da nga wax ak moom ak fugg attaqué ko ne ko ñime woo ma mas nga wax nga fi mbër tamit ne ko yaa ma yàpp mais say supporters yàbbu ma la yàbbuñu ma booy ñaa mi gis naa mu jóg ñëw sëkkatal la ay yoon tey booy ñaa lan la la ñimee kot man li ma wax sama supporter dafa leer di des suma carrière mbër dootuma yëpp te samay supporters yi ma leen li ma wax rek laay confirmé loolu rek doy na wax incha allah booy ñaa ci mbër yooyu bokk mbër yi la doon man du ma ci bokk incha allah du ma ci bokk dégg nga ko ne du ci bokk non man est-ce que moom sax du ci njëkk ah est moom du ci njëkk du ci njëkk maanaam ci ñëla dul yàpp moo ciy njëkk li ma wax dafa leer de ah. li ma wax sama supporter laa lay waxaat. waaw yebbu ma sama supporter yi. yaboo leen. déedéet te du ma leen mës a yeb. waaw te mbër dootuma yeb. booy ñaa dégg nga li mu wax nee na ñi ko dul yab yaa ciy njëkk. man du ci bokk parce que man dama ko xam bu baax. foo teg ne doo ci bokk. adversaire bi. waaw dama ko xam bu baax a baax. foo ko xamee dama ko yàgg a topp. waaw yaa koo xool yaa koo gis. man visionnaire laa ci làmb mbër bu ma mbër bu ci nekk. boo ñëwee toog ma wax la ci moom A ba Z damay xool ñëpp mais moom dama koo xam kii ba muy commencé ci làmb ñun Pikine fa la daleel baa fa la doon ñëw ñu ñoo ko yokk fit ñun waa kin bii ñoo ko yokk fit kii jërëjëf dañ doon teg dañ doon toog buntu kër Ablaye Diop président moo xam la li may wax ñu nekk ay boy ndaw jour bu ñu dem entraînement dañuy may cent franc wala téeméer mu romb nekk champion bu mu ñu fa nekk champion bu sorti ñu nekk ay boy ndaw di ñaan fukki ñu jëndee cere moo xam na koy wax mu ñëw ndaw ñu nekk ay boy ndaw bu ñu rombal foofu maanaam ñu nekk ay mbëri ndaw loo xam ne tax duñ sax ndaw loo dañuy ñëw rek romb ñu dem boobu suñu bët mu ngi ci moom boobu ba léegi waaw xam nga yàlla nag suñu borom mooy def combat bi bëri woon na jàdd jàdd fu nekk moom moom fa jaaroo fu nekk moom moom fa te fu ma jaar mu dugal fa loxoom combat yi ma yëpp ba mu waree moom yàgg na moom ma fi ma jaar nii yëpp te fu ma jaar mu dugal fa loxoom dugg ci combat waaye yàlla suñu borom. sotti na tey man ak moom ñu jàkkaarloo dara dox suñu diggante bu dëggalee boppam mu dëggal sama bopp ku dee ñu sul la ci stade bi ku mën sa moroom duma incha allah. salaamaaleykum réew mi yëpp maa leen di nuyu di leen ñaanal jàmm maa ngi leen di ndokkeel ci weeru gàmm gi yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm di leen ñaan li ñu ñaan Tiwaawan yàlla na ko yàlla nangu ci barke Seydina Muhammad gars yi déglu leen li may laaj ñoom ñaar ku nekk benn question laa lay laaj yi damay laaj Balla Gaye numéro 2 benn question laa koy laaj. Balla Gaye numéro 2 bëreeg Boy ñaa nga jóge ci Gris Bordeaux nekkoon super lourd bëreeg Boy Niang nga mobile wàññi poids wàññi sa yaram lu tolloog 25 kilos ba 30 kilos lan moo waral nga wàññi poids bi da ngaa pour Boy ñaa nga wureeg moom ci wàllu bëre wala lan la ñuy xaar lu tax nga wàññi poids lu waral loolu. jërëjëf Fadam euh, balaa ma wax ci question bi damay wax tontu Boy Niang ci wax bu mu wax. kani buy bëree. damay dugal sama loxo ci ay combat am maanaam ma jot boobu bëri naa ba fi ma toll xaw ma loolu man soxoruma ñaanuma aw ma temps sax barki Serigne Saliou Mbacke du ma nit ku bon du ma nit ku sawaas ba ngay bëri mooy dugal sa loxo ci combat yaa am jot boobu am esprit boobu. parce gis moo tax. non ma sa jot. dama ko gis moo tax. ba may bëre bëre woo vingt 25 ans la am nekk roi des arènes am nga 30 ans wala 32 ans. mais yow loo fi daan rek daanu nga ko wax ma daan daanu nga yaa ngi ci cinq défaites loo fi daan rek daanu nga ko 5 défaites loo fi daan daanu nga ko loo fi daan daanu nga ko may ñuy jàmm. waa léegi dañ ko may mu tontu ci question bi lan moo tax Balla Gaye numéro 2 di bëreeg Boy Niang wàññi poids lu toll ak 25 kilos ba 30 kilos lu waral loolu. lamb la rek lamb la rek. làmb la rek. doo ci tontu garaawul amul problème waaw mais Boy Niang laa laaj benn question rek gars yi ngeen bàyyi xel li ma koy laaj Boy Niang da ngay bëre ak Balla Gaye numéro 2 te combat bi dafa am plan A am plan B plan A bi mooy Balla Gaye ñëw sa kaw plan B bi mooy Balla Gaye réservé wu bu fekkee Balla Gaye daa ñëw def li ñu ko xamatul ci lam mooy mu réservé wu tee boppam lan la Boy ñaa di indi ci wàllu technique ba mën a dugg ci garde Balla Gaye 2 ba ci ngembam ba ci yaramam. Fadam maa ngi lay nuyu waaye question bi nga laaj ni loolu sama yëf bopp la loolu sama yëf bopp la day ñëw day dem ak day toog ak yoon moom la concerné mais ma li ma concerné sama yëf bopp la maa ngi ciy liggéey ak samay papa maa leen nuyu sama père Palla 200 pour cent Pikine bi père maa leen nuyu Pape Sarr. jërëjëf 200 pour cent Pikine bi maa ngi nuyu ñëpp am na loo xam ne sama yëf bopp la maa ngi nuyu nag ñi nga xam ne dañ may jàppale mu mel ni sama papa Abdoulaye Timbo. maa ngi koy nuyu du ko ziar di ko wax mu jàpp ci combat bi bu baax a baax a baax Ousmane Sy maa ngi lay nuyu aca bay balla bay balla bu baax a baax Pape Bouba non Pape Bouba yow maa ngi lay nuyu yow moom tey dama du ma la jox kàddu bay balla mbub du nuyu waa ñoojoor waa mat faafuka jërëjëf alaaji Saare may jàppale ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu supporters yi ceen na ba ma ngi koy nuyu di leen wax mention spéciale supporters yi maa ngi maa ngi jégalu sax mais Marley di suma frère mënumaa wax te ñaanalu ma ko ndam yàlla na la suñu borom may ndam ci barkent bi sallallahu alayhi saa kees yàlla na la yàlla may ndam bu sedd guy incha allah jërë ngeen jëf jërëjëf ñu ngi ñu ngi félicité supporters yi di leen wax mention espécial ndax lamb bu neexee ba amateurs yi bëgg ko di teew ci làmb grace à supporters yi moo tax ñu ngi leen di félicité bu baax a baax a baax waaye booy ñaa numéro 2 benn question laa am pour yow yaa ngi bëri un très grand champion koo xamante ni carrière am ci làmb kenn dootu ko werante Balla Gaye numéro 2 boo ko ñemewul doo ko daan Balla Gaye numéro 2 bu arbitre sifflé nangoo ko affronté doo ko daan Balla Gaye numéro 2 bu arbitre sifflé boo xeex moom doo boo nangul xeex moom doo ko daan est-ce que pare nga pour affronter Balla Gaye numéro 2 est-ce que pare nga pour xeex ak Balla Gaye numéro 2 est-ce que pare nga pour bëre ak Balla Gaye numéro 2 bi ci des bi ci des mooy Balla Gaye numéro 2 moom moo ko moom xam nga xale bi ngay dajeel dafa dugg géejawaay am nu mu fa am fu mu jaar ak les deux am fu mu jaar ak Pape am fu mu jaar ak Sa Kajoor am fu mu jaar ak Sa Thiès est-ce que loolu du la déstabiliser ci combat bi nga war a bëri revanche yooyu yëpp. bala Balla Baye Balla. waa waa xaaral gas waa xaaral kaay kaay kaay Pabis moom moo war a wax ci pay-per-view moom la père Gaston bëgg mu wax ci pay view mais léegi tontu leen ñaari question yi Pabis. nga wax ci pay per bi naka lay demee. waaw comme li ma wax sànq rek faram nee naa am na loo xam ne moom sama mbiru bopp la sama stratégie de combat wala lan laay bëree wala lan laay indi loolu sama yëf bopp la waaye maa ngi ñaanal doomu Pikine bii suñu borom defal ko ndam muy soq booy di nuyu ñaari champion yi di leen jox seen cër ak seen yàquwaay bu baax a baax a baax di nuy sama frère Ama Baldé. ak mafia caw sa xir bi yëpp ñu ngi leen nuyu bu baax a baax suñu mag ama seen ñu koy nuyu di ko jox ci waajuwaayam bu baax a baax kii lu koy daan dafa nekk si ñun dañ ko xam bu baax a baax suñu mag fu mu ko jàpp du ko jaar na yoon da koy jàpp di ko dóor ay onze coups kii dañ ko xam waa mais question ba la est-ce que est-ce que xam nga li ma def Pikine ba pare moom li mu def géejewaay laa wax. non man li ma def Pikine laa nga may laaj man après. non dama ne revance nga ñëw pour jëlal waa géejewaay. non ban revanche. aw ma revanche <laughs> c'est la première fois ñu daje. noo dafa bëri sa rak Sa Thiès daan non non non ça n'est rien lu. c'est pas la lamb la ñuy man ak moom. am nañ ko man ak moom ñuy bëri. yaa ngi réer mbir mosoo maa xam. dama laa xam bu baax a baax. li nga doon def Pikine yëpp mënuñu koo wax xam nañ la bu baax a baax. léegi nag kii dese na benn question kii nga xam ne mooy Mamadou Diouf ITV mais balaa moo ñëw ci question Mamadou Diouf dañuy wax espoir ki perpévu bi bal yëkkatil ma grand boub bi. Pabis moom mooy wax ci perpévu bi ñi nga xam ne dañu nekk ci diaspora bi naka la ñuy mën a seetaane combat bi ci perpévu bi Pabis. asalaamaaleykum euh, jërëjëf tonton ñu ngi leen di nuyu di ziar ñëpp di. remercier encore une fois tonton Gaston ak euh, Makan si liggéey bii ñuy liggéey euh, juste que combat bi incha allah rabi ñu ngi ñaan yàlla ñu dem si bu baax le premier janvier ñu ngi wax ñëpp nekk vu que 1xBet moo ko maye Sénégal donc de ce fait pay per bi pour ku nekk diaspora rek la ñuy wax ne tamit euh, jot nañoo ubbi vente yi képp koo xam ne bëgg na jënd incha allah rabi am na pré-vente am na jour J mais nag prévente bi dafay dem bala vingt cinq décembre xam naa ne dinañ wax ne prix bi dafa bëri mais yaakaar naa combat moo toll noonu kon de ce képp koo xam ne bëgg na ko jënd combat bi ñu ngi koy jaay à onze euros quatre-vingt-dix-neuf fii ba le vingt cinq décembre incha allahu rabbi léegi nag bu weesee le vingt cinq décembre prix bi dafay yéeg ba le dix-neuf euros quatre-vingt-dix-neuf instant bii nii vente yi ñu ngi commencé incha allahu rabi demain matin si seen affiche point com si seen affiche d' abord point com mën nga fa dem di nga gis normalement information yëpp yi nga soxla bu fekkee tamit dem nga gisoo li nga xam ne moom nga soxla mën nga ñu woo si 77 486 12 33 incha allahu rabi am nañu whatsapp am nañu facebook 486 12 33 77 486 12 33 loolu mooy pour combat Balla Gaye 2 Boy Niang bi am na tamit beneen combat mooy bi nga xam ne mooy euh, Marley Sock Marley soq bi ñu ngi koy jaay incha allahu rabbi à partir de 5 euros 99 mais tamit euh, c'est vrai que combat bi c'est gratuit au Sénégal mais képp koo xam ne bëgg nga ko jënd alors que disposé woo par rapport ak euh, moyen de paiement carte bancaire wala PayPal mën nga yónnee fii ñu jëndal la ko par euh, Wave Orange Money wala yeneen yëpp après ñu yónnee la ko foofu noonu yëpp incha allahu rabbi amul kii te ñu ngi wax ne le mieux mooy na nit ñi teel a jënd parce que li si gën a neex mooy instant bii nii seen affiche boobu bëlee tooguñu ñu ngi wër ak mbër yi di leen dem seeti di dugg seen biir di xam exactement nii préparer combat yi di voyager ak ñoom lépp jël préparer yenn événement yoo xam ne nii nit ñi dinañ si gis seen bopp kon nag ñu ngi woo ñëpp ñu teel a jënd teel a xool teel a am ay entraînement exclusif teel am ay contenu yoo xam ne mënoo ko amee feneen fudul seen affiche merci. jërëjëf Babis moo doon ci PPV bi ñi nga xam ne ñoo nekk diaspora bi Mamadou Diouf benn benn question bala Gaye benn question Boy ña bu ko defee rek nag ñu def photo famille tàggatoo. jërëjëf Père Sala bi asalaamaaleykum maa ngi nuyu assistance bi fi teew yëpp di la nuyu di nuyu Cheikh Sarr di nuyu El Hadj Malick Thiandoum Père Gaston Makan maa di nuyu bu baax. Balla Gaye 2 maa ngi lay nuyu ak yeneen mbëri Boy Niang maa ngi lay nuyu baax mais Balla Gaye 2 dañu gis nga jóge ci Gris Bordeaux ne mbër dootuma yàpp ci làmb loolu foo ko teg Balla Gaye 2 bi ci Gris Bordeaux ne mbër dootuma yàpp ci làmb loolu foo ko teg loolu wax naa ko ba pare aha dama koy dëggal rek da koy dëggal ci ba ci booy bi dama koy dañu gis nga baagaante bàkku bañ bal yàgg nga nangu ah xool Balla Gaye ba mu neex la nga ne maa ko ëpp doole loolu fan nga ko teg. waaw parce que yàlla dafa dogal ma nekk xale di liggéey te li ma liggéey rek moom laa gëm. li ma liggéey rek loolu laa gëm. acca booy ñaan maa ngi nuyu Siré Dia sama papa Siré Dia. maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. nuyu mbokk séeréer yëpp. jërëjëf Cheikh Sarr baax a baax. di ñaan di ñaan suñu borom may ñu ndam. jërëjëf ci barke Cheikh Sarr Abdou Abi. ci barke Cheikh Oudou Mami du nuyu sponsor yi nag jërëjëf maa ngi nuyu njabootu waa kër sëñ Baara yi man waa kër sëñ Baara laa. léegi fa famille. maa ngi nuyu njabootu waa kër sëñ Baara bu baax. waa ñu ngi nuyu waa Mbacke Kajoor. guy mbind. waa Sorano Gaston production ñi ngi leen di gërëm bu baax. sama xarit Serigne Cissé Junior. maa ngi lay nuyu tam bu baax a baax sunu xarit. photo de la famille photo de la famille di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi doon seetaan. fii ci théâtre national Diagne Sorano. merci beaucoup la bi nga xam ni Gaston production moo ñu indil affiche bu rafet bii. merci beaucoup ci diggante Balla Gaye 2 Boy Niang Sokh ak nga xam mooy Marley Franc Forza Reug Sa Thiès kon ñu ngi leen di jox dig daje incha allah rabi le premier janvier ak le 14 janvier ci ITV ak la Sen TV bu ko defee rek la fête soit belle ci drapeau Thione Ballago Seck jërë